maamam jigéen ñu booyal naanu kaaba yi bani ndee ndeysaan maam jigéen ñu booyal naanu kaaba yi bani ndee ndeysaan ndee ma maam jaara jaaraama soxna si jigéen ñi booyal naanu nga bay balinde maam soxna jaara maami Cheikh Mountakha Mbacké jigéen ñi booyal booyal naanu nga bay balinde soxna jaara mam jigéen ñi booyal nañu nga bay tëddinde jaraama mam jaar jaraama soxna si jigéen ñi booyal nañu nga bay tëddinde amoo morom maam jigéen ñi booyal nañu nga bay tëddinde waaw waaw jaraama soxna si jigéen ñi booyal naanu nga bay paninde waaw waaw bu sabali jaraama maam jara ko am jaraama yaa ko waral sa doom rëy karaama maam jara amoo morom sa am morom mëri kara soxna jaara jaara faamam jaara ko abba qaama aku faral keroog keroog bisub xiyaama ko amma qaama xaama ya ko waral keroog bisub xiyaama jaara maamam jaara ko am hidaaya ko faral sa doom ma am wilaaya ko am idaaya yaa ko waral sa doom am wilaaya bu sa baal jaara maam jaara ko am hidaaya yaa ko waral sa doom ma am wilaaya ko am idaaya am hidaya ak waral sa doom bu sabaale jaara ba maam jaara ko am tey ay junni yaa ko waral sa doom ba jom fal jinne ko am tey ay junni bu sabaale jaara ba maam jaara te xarful jiime jox na la jikko yu soxna si yakal nga waa yakal nga waa jeere ba ñépp géejal maam yóbba fu maam jaara yàkkal nga waa jéeri ba ñépp gi jël soxna si baykat ga bay nga bay da tindaan di jigéen ñu boo el na longa bi pëndinde maam soxna jaara ya tindaan soxna si tëkkaleel ak jigéen ñi ak soxna jaara xuna ara mel ni yàlla ki yaay leen soxna jaara ara wala jaara gi ñëpp ñëpp ko yaa dul ca tuwa di ko way wala si yaare ka ñaanal jaaratullah ñu ko gàddul ñu toog di ko way boole si maam jaara gi ñëpp ñëpp ko gàddul ca toog di ko way boole si yaare ka ñaanal jaaratullah ñu ko gàddul ñu toog di ko way boole si yaare ka ñaanal jaara ku dul kon ku sunu maam Mariama jaaratul kon ñëpp jaaru jëm ci jaaratullah nu maam Mariama jaaratuna kon ñëpp jaaru jëm bu sabale bu dul kon rawdatu jaara fi Porokhane kon wóor ya daa xare duñ jëm jannatullah poroxaan ko yakaare du dem bala asanani ko alhamdulillahi kay ndagam tuubal man bala xaay man jaaratullah alhamdulillahi karim ndagam tuubal وسبالي نيل سلام عليكم بسجاتنا يا دون مريم يوم جلا عليكم كلام جبريل يوم فايكون جارة الله baay kun la amoon jaara bala ay sa Seex Bamba ne xaadama lam yakuni lahu raa yakunu lil mumkinin binallah man jaara maa la juróom ka si yaare ka yërëm lu feew am xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay sa bale xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay jox na la ko suñ cër yaa ngi lillaay soxna jaara xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay jox na la ko maam jaara soxna si xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay jox nan la ko bu sa baale soxna si xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay jox nan la ko bu sa baale bu sa baale bu sa baale xol yaa ngi ru yaa ngi suñ cër yaa ngi lillaay jox nan la ko suñ cër yaa ngi lillaay soxna jaara xol yaa ngi ruuj suñ cër yaa ngi lillaay jox na la ko bu sabaani bu sabaani xol yaa ngi ruuj suñ cër yaa ngi lillaay jox na la ko bu sabaani bu sabaani xol yaa ngi ruuj suñ la ko soxna si xol yaa ngi ruur yaa ngi suñ cër yaa ngi lay na la ko maam jaara buso soxna si xol yaa ngi ruur yaa ngi suñ cër yaa ngi lay na la ko suñ cër yaa ngi lay